alhamdulillahi ki may xamal bu wérte di may xéewal ci barkeb ki mu xëy jébbal lu dooni xéewalam alhamdulillahi ki may xamal bu wérte di may xéewal ci barkeb ki mu xëy jébbal lu dooni xéewalam yéen gaa diine jege ma jàngal leen te dolli leen xam-xam bu wér jafe leen ma fecc tey ay fas-fasam koo xam ne xam na lii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam loo ku xam day dolli xam te lii ma leen di bëgg a wax day daggi xol dëggal li wax xam naa ci wàccaay nag moom mbooloo mi mën naa mën naa mën naa bañ a jafe ndax loolu lu ñu waajal la ndax ni ñu koy amee rek mooy effectif bi nga xam ne ci la organisation am ci événement yi muy taxaw ci yooyu lay lay basé wu ndax bépp daayira bu aju ci section Touba xam na ñaata membre lañ fa am ci effectif ci organisation léegi nag commission yi nga xam ne sous commission yi nekk ci biir commission d'organisation membre yooyu la ñuy jël partagé leen ci hébergement restauration sécurité ak internat su dee fu ci nekk la fa jaadu xam nañu ko fa leen di orienté su dee bu ci wàllu liggéey nag moom doo am jafe-jafe ndax national leen ba ku ci nekk soo jógee xam nga barab ba nga xam ne foofu nga war a jëm ci fa war a liggéey ko defee loolu moom ba fi ñu toll nii di wax ak yéen amaguñu ci jafe ndax euh, waaye dawlu bi ñu ci génnee daaw lañu ko lañu ko waajal xool lépp loo xam ne gis nañu bu ñu ko ci dollee dana gën a taw feexe lépp loo xam ne bu ñu ko dindee dana dana dana gën a améliorer doxin wi tamit waxtaanee nañu ko bi ñu ko tënkee jox ko responsable muy jëwriñ yi mboolem lu ñu ci bëggoon te tënk ko démb mel na ne lépp génn na bi ñu tënkee lu ñu soxla lépp nag muy dépasse yi ci aju ci restauration hébergement internat ak sécurité li ñu soxla bu ñu paree dañoo génne benn divers boo xam ne lu ñu fàtte ci loolu ndax nit matul ci lañ koy def kon mën nañu lépp lu ñu bindoon mu war a jóge ci finance bi ñëw ci organisation loolu jot nañu ci fi ñu toll di wax ak yéen kon restauration kenn mënu ko programmer waa diwaan ñu ngi fi waa Sëñ Mbàkke Madina ñu ngi fi ak wilaay tamit ñeneen ñoo xam ne lañ jógee te bokkuñ ci commission bi nekk Touba kon maanaam liggéey bi mën ci lañ tàmbalee ba léegi ñuy nekk ci ñoom ñu dem te xamuñu lenn luñ leen di fayee ndax même yor seen kër di fa joxe dund taxul ñu fay leen waaye lan leen mën a fàttali ñu wut sàkk bisum ñaan waaye ñu gis na nag yemale ko ci ñoom rek day gàtt ñuy tàmbale nag jullit bi jëkk faatu ci suñu maam Adama ba ci jullit bi mu mujj denc tey jii ñu boole la ci ñaan gi lool rek mooy sababu bis bii de. comme commission restauration sunu doom suñu rakk suñu jarbaat Serigne Aliou Fall jiite ko wax na dëgg xaj na 2008 ak léegi yàgg na du benn fan du ñaari fan waaye nag lépp loo doonutub dongam doo doonub doo doonub sëriñam nangu naa topp ba yàlla dogal tey ñu koy topp. kon tey bu ñëwee ci waañ fekk mu yore ko sëñ Matar Kan mi di secrétaire général ànd ak ñoom di taxaw commission yëpp ñëw ñu taxaw fii ci su commission restauration ci waañ wi waañ wi mobiliser mboolem daayira yu bari ni mu ko waxee waa Kër Sëñ Mbàkke Madina mboolem diwaanu Muridina kenn desul waa Kéré Mbay waa daayira ñaari guddee Ndakaaru waa Bisri ñëpp ne fi ci liggéey bi kon ñun bu ñëwee en tant que président war nañ leen sant gërëm leen daayira yàlla boole muy mu xaddimaatul xidma Bisri ñaari guddi yi Ndakaaru ñoo ma doon woo léegi ñu ngi ca mbaar ma euh, safinatu amaan yàlla képp moonu boole ak yeneen daayira yu mel ne ñoom duma leen ndax ku lim doo matal jëmmi yàlla moonu boole ndax dañuy liggéeyal Serigne Touba ñun ñëpp nu bokk nekk ci kap keppaaruk Serigne Touba di liggéey kon boo dégloo turu daayira bi ittihaad Atbaaqil Xadim la wax kon ku yaakaar ku yaakaar Serigne Touba ci nga bokk kon bu ñu déggee ñuy liggéeyal Serigne Touba war na noo mën a ànd bis reng ne ñooy jàng ca mbaar ma ñaari guddee nga ne ña nga duus li ñu andi ci kaamil kenn xamul kañ la euh, waa waa waa Kéré Amaan kenn xamul luñ jàng waa waa barki dem ba ñu def gis nga waa waa Muxaddamatul Xidma noo ko ubbi ci alxuraan ka koy doon jàng suñu doom la waaye bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma kon liggéey bi lépp benn te yàlla tax rajo yi ñu fi takk ak lu ñuy def lépp waa daayira Muxaddamatul Xidma boole kook seen mobilisation kon ànd bi yàlla jëm Serigne Touba dong tax ñu ànd ak kenn joxu ci sa morom dara lu dul yàlla jëm Serigne bi kon ñi ngi sant commission yi sant sant mboolem fi teew yëpp di ñaan daal bis bi lañ ciy sàkk mooy yërmande yàlla ak njëggalam yàlla nañ ko ci yàlla defal salaamaaleykum wa rahmatullah lu ku ko xeeñ na wut a jub wey na xamee ful fu mu jëm jës bul xuloo bi dafa daw bii jës bu jug fa mu aw te ku ko dab na dawa daw raw na xamee ful fu mu yam lu jiitu lii dafa dawal ña dërawante ka dawal naka fa raw bi àkkal àkkam wa kenn gisul pëndëm ma dal di jug tafal ko bi jës bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fanu jëm kemub li nuy dox di ko way fayante la ak moom ki mu way da koo gërëm ba di ko way làmmiñ yi dal ko gërëm ma far jofal man di ko way di barkeeloo di ko roy ñi way ba daane ku ko way ak ku wayul ñu ne wedam lu ma wax ak lu ma waxul wuute ga fes na nëbbuwul tey ba fi tey danaa fesal lu doy xam caay wayam danaa xamal xamul mu xam xamal ku xam mu gën a xam ku bëgg a gis te bëgg a xam na déglu xippi ay bëtam kenn du werante lii ma wax waaye xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma saf ko ci xolam bu leen ma yéem yéem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax